Cheikh Mbacké Tine ñu ngi lay nuyu. monsieur Gomis maa ngi lay nuyu di nuyu auditeur Rewmi FM yëpp di nuyu aussi xam naa liggéeykat Médis ñuy déglu ak tous les sénégalais yi ñuy déglu. yow délégué du personnel Médis Sénégal nga Médis boobe ci ndajeb conseil des ministre bi mujj njiiti réew mi sonj na tamit gouvernement am ñu ñu fexe ba gën a baral loxo yi bu ko defee ñu mën a euh, relancer waat activité yu usine pharmaceutique boobee ban yëg-yëg nga ci am ba nga déggee loolu ndax am tamit lépp yemb na ngir Médis Sénégal daa di euh, dooraat liggéey bi. waaw monsieur Gomis donc euh, comme ni nga ko waxee njiitu réew mi conseil des ministres bi passé ci àllarba gi waxaat na gouvernement yam ne leen ñu jël motuwaay yépp pour que entreprise pharmaceutique bi ñuy wax Médis muy defar ay garab Sénégal ñu relancer waat ko maanaam mooy mu commencé waat liggéey ndax dafa taxaw instant bi ñu fàttali rek ne Medi Sénégal taxaw na depuis donc euh, début avril deux mille début début janvier deux mille vingt donc maanaam muy am at boo xam ne entreprise bi taxaw na ko liggéeykat yi ñu ngi toog di xaar waaye itam day rappelé ne que njiitu mu njëkkee joxee ndigal ci lool mu ngi nekk euh, ci weerum avril deux mille vingt ci la njëkk a joxe ndigal ci conseil des ministre wax ay ministre am ne leen ñu jël motuwaay yépp pour que entreprise yu ñuy wax Medi Sénégal moo na commencé waat liggéey garab ndax dañ nekk ci tàngu Covid tàngu feebar. donc day baax usine bi fi nekk defar ay waaye nag malheureusement ba mu waxee ba léegi daal liggéeykat yaa ngi xaar usine bi mu xaar pour que matuwaay yi mu wax ñu def ko mais ba léegi yàmbagul nag te loolu nag jaaxal kat li jaaxal na liggéeykat yi te war naa jaaxal képp koo xam ne da nga xalaat. Ah, ah, ci mbir moomu nag ci ubbi teg googu nga xamante ne ni nga ko waxee li ko jiitu weeru suwet sulet euh, atum 2020 moom jiitu réew mi waxoon na ko waaye boobu ak léegi état bi yan euh, mesure d'accompagnement la jël ngir gunge leen ci loolu. waaw donc bi nga xam ne njiitu réew wax na ko nag dafa waxoon pour que ñoom état bi ñu dimbali Nedis ci ay matuwaay pour que entreprise mën a ubbi te liggéey mën a do mën a mën a jëm ci kanam. Mm-hmm. ndax Nedis li tax mu taxaw dafa nekk ay perte financière yu mu wax ne moom la am. perte nag li ko waral mooy amul commande publique bu doy waaye tam on ay koppar léegi nag bi ko defee bu ko bi mu ko defee nag donc njiitu réew mi ne. monsieur Macky Sall daf koy jox xaalis maanaam ci réew mi li mu am Sénégal li mu am part ci entreprise bi. Hmm. daf koy yokk ndax fi ne boo jëlee Sénégal actuellement téeméer bu ne Sénégal amul ci sax benn ci ci ay ci ci ci ci wàll amu ko ci entreprise bi amul ci sax benn. dañu hmm. ngi rappelé ne entreprise bi Senghor moo créé woon en 1973 donc entreprise bu muy juddu Sénégal amoon na ci lu bare bare bare. Hmm. bi ñu juddu 1973 mais actuellement amul sax 1 pour cent te loolu daf na jàpp na jaajëful ci entreprise boo xam ne nii dafa stratégique. ndax pharmacie la donc garab fa am solo ci réew donc dafa laaj réew mi am ci bët te pour am ci bët foofu mu am ci paar yu baree bari yu en tout cas yoo xaw a takku. Mm-hmm. donc jiitu réew mi dafa waxoon ne dañuy dugal xaalis lu toll ci cinq milliards pour que instant pour que ñu jógee benn ci benn dem ba ñaar fukk nga xam ne téeméer bu ne da nga ci am ñaar fukk. ensuite aussi njiitu réew mi waxoon ne comme que ay doomu Sénégal dañoo liggéey ci entreprise bi produit yi ñu fabriqué dañ ko war jën même suñu jëndul lépp. Mhm. comme ni def rek ci wàllum euh, wàllu les meublés de l'état du Sénégal comme noonu rek la noonu la demee nga xam ne day am benn paar boo xam ne en tout cas ci marché publique bi nga xam ne euh, kër gi ñuy wax PNA di jën garab donc en tout cas lu bari na ko jënd Sénégal donc ñaari mesures yooyu la la njiit réew mi waxoon pour ñu def ko. muy mhm. jënd garab yi waaye itam dugal xaalis. Mhm. njiit réew nag wax na ko nag liggéey nañ ci lu bari nag. ndax état direction générale ministre ak état bi liggéey nañ ci lu bari. ba nga xam ne këyit yi nga wax këyit yi nga xam ne ñoo war a firndeel loolu ñu war koo signé nag waaye léegi nag signature yi ñoo des donc signature yi ñu ngi des ci ministère bi ñuy wax ministère des finances mooy ministère bi yor wàllu koppar yi ak tey ki jiite ko monsieur Abdoulaye Daouda Diallo jiite ko ak ministère bi ñuy wax ministre de la santé te monsieur Diouf Sarr jiite ko ñoom ñaar ñooñu ñoo war a dagganal këyit yooyu pour que ñu relancer Médis Sénégal démarrer production bi liggéeykat yi commencé war liggéey. Hmm. ndax MEDIS dafa am lu ëpp téeméer lu ëpp ñaar téeméer nit ñoo xam ne ñu ngi fa liggéey te instant ñëpp ngi taxaw te comme ni ku njiit réew mi waxee ci son discours bii passé 8 mars nee na comprendre naa jeunes yi parce que jeunes dañoo sonn. Hmm. effectivement waa MEDIS dañoo sonn donc euh, vraiment ñu ngi xaar que euh, jëwriñu gouvernement yooyu ñoo valide rapidement lii ndax dafa jàmp. dafa hmm. am solo. pour que ñëpp mën a commencé waat liggéey incha allah. Hmm. Euh, yaa ngi ko wax usine bi mu ngi tëj daanaka fukki fan juróom weeru janvier 2020 boobu lu ëpp at kon diggante boobu lan ngeen di def ndax xam da ngeen di xëy rek dem bi wala yéen ngi woon feneen. waaw depuis loolu nag gis nga liggéeykat yi parce que liggéeykat ministre dañu bëgg médis. Hmm. dañu bëgg médis liggéeykat dañu bëgg foofu boo ñëwee dañu leen fekk di lundi xam nga chaque chaque jour nga ñëw toog di xal gi depuis un an mooy liggéeykat yëpp sonn nañ. Hmm. te vraiment état bi war na leen dimbali direction générale war na leen dimbali pour ubbi kër goog pour ñëpp commencé liggéey ndax xëy toog baaxul. Hmm. baaxul si nit ki baaxul ci réew mi ndax bu ñu doon liggéey da leen fay impo donc loolu sax baaxul ci état donc euh, moo tax urgence la que njiitu réew mi ni mu wax vraiment gars yi def ko ñu commencé waat liggéey bi. fan ngeen mujjun euh, ci négociation yi nga xamante ne moom ngeen sekkoon ak direction bi ci lu jëm euh, ci wàllub kon euh, bañ a yóbbu ñenn ñi chômage technique waaye tamit li ñu namoon a def muy wàññi seen payoor ba téeméer boo jël daanaka juróom fukki ya ñu wàññi ko. waaw nag Gomis alhamdulilah loolu moom loolu moom loolu moom dépassé nañ ko ndax bi nga xamante ne nii effectivement ni nga ko waxoon effectivement bi ñu doog commencé problème bi effectivement liggéeykat yi ak direction bi amoon problème. Hmm. jéego woon bi ñu doog commencé. Mhm. c'est-à-dire bi ñu doog technique mais bi nga xam ne njiitu réew mi jox na ndigal ne que dañuy dimbali MEDIS accompagner ko pour mu redémarrer waat ndax Sénégal daf koo soxla si lu ñuy wax souveraineté pharmaceutique te liggéeykat yi ak direction générale ñu toog waxtaan. Mhm. mais comme que mi joxaan na ndigal léegi foofu ñu waxtaan bi ñu waxtaan nag ci lañu trouver benn euh, vraiment ñu trouver accord nga xam ne ministre dina xool lu ñuy lijjantee weer ñu fa ñu bees yëpp. ak weer yi di ñëw. Hmm. ak bu ñu commencé waat liggéey xool nu ñuy fayee ñoom ñuy dampe nan leen dampaay bi di demee donc lool moom vraiment rek lañ ko bu baax rek lañ ko ba mu pare bañ ñu signé ko des rek mooy xaar état bi li mu diggee mu def ko bu ko defee ñu démarrer waat production bi. mais côté négocia négociation entre liggéeykat yi ak direction générale moom féete na boor pare nañ si li ñu xaar rek mooy diggante état ak Médis Sénégal. ak direction générale bu MEDIS. ndaxam MEDIS mën na kon assurer Sénégal ci ëllëg bu yàggul wala sax sous région bi ab autonomie euh, ci wàllub garab. waaw waaw Gomis nag euh, autonomie donc ni ma ni ko njiitu mu mi waxee muy wax souveraineté pharmaceutique souveraineté pharmaceutique nag bu ñu ko waxee nag ay garab ay ay usines yu bari la laaj. Hmm. waaye MEDIS en tout cas ci domaine thérapeutique yi nga xam ne ci la yëngu. mën na ci fournir état Sénégal lu bari. ndax euh, avant que ñuy arrêté. ministre da doon fournir Sénégal garab mais da doon jaay garab bitim réew aussi jaay doon jaay garab Mali doon doon jaay garab ay Cameroun doon doon jaay mara garab ay ay ay yeneen dëkk yu bëri ci Afrique. Mm-hmm. donc Médis moom capacité production moom mun naa fournir Sénégal ci maanaam en tout cas ci li muy ay garab garab yi muy fabriqué mun nañ ci fournir Sénégal yu bare ci li mu soxla. Mm-hmm. waaye nag souveraineté pharmaceutique moom boo ko bëggee effectivement ni ku njiit réew mi waxee. comme ni mu wax ne dafay pour créer benn projet industriel ci waawoon euh, euh, benn beneen dëkk foofu euh, ay usine foofu usine yu defar garab mais nag moo tax nag yi nga xam ne bala ngaa defar yu bees nag da nga war defar yi fi nekk yi fi nekk nag moom mooy MEDIS donc foofu mu defar MEDIS ba pare. Hmm. am na tam yoo xam ne ñu ngi ci en projet xam ne dañu a jóg mais en tout daal moom mooy defar MEDIS MEDIS bi nga xam ne daal na daal te taxaw ñu defar ko ba mu jagaat ba commencé waat. bu ko hmm. defee bu ñu waxee ñoom ne. da ngeen defar yan yu bees nit dina la mën a gëm waaye tant que defaruñ moom boo ko wax sax danaan kii li moom est que est-ce que mën a nekk. Médis euh, tool na ay jamono ngeen doon euh, defar ay garab yu ci mel ni kon chloroquine. laataa ñu leen mhm. koy tere. Euh, tey jii ñu gis ni dañu koy jëfandikoo ngir faj lii di coronavirus bi ci Sénégal ndax am ubbite gi ñu koy waajal am ngeen ci yaakaar ne di ngeen dooraat liggéey chloroquine boobu. waaw Gomis waaw chloroquine ni nga ko waxee dëgg la danañ ko defar ba ba lu ah. xam naa su jumul ay dem ba 2011 daal ah, non non deux mille waaw ba 2011 ba 2012 wala 2013 daal defar nañ ko ndax man mi di wax ak yow defar mm-hmm. euh, nañ chloroquine. Mm-hmm. donc moom molécule bu yomb a defar la ci ñun ah, ci ci ci ministre donc euh, lim en tout cas li nga xam ne moo koy defar mu di équipement ya ñu ngi fa processus bu koy defar mu fa doomu aadama yu koy defar tam ñu fa donc mm-hmm. lan moo des rek. dem importé ay matières premières maanaam mooy li ñu koy defaree nga defar ko. Hmm. i tax ñu arrêté woon ko mooy chloroquine da doon faj sibiru te après dañ ko abandonné woon ci wàllum sibiru moo taxoon rek ñu ko mais mën nañu ko defar ba léegi donc su fekkee ne gars dañu koo soxla ci wàllum faj Covid 19 bi dañuy dem rek commandé garab commandé matières yi nga xam ne ñoo jóge ay Chine ay Inde ko defee ñu defar ko fii te dañu ko mën defar incha allah. Mhm. ñu wax tamit ci Médis ak ëllëgëm. gannaaw bu ñu mhm. jàppee ni war naa mën a ubbi lan nga gis ni kon war na ko am ni ëllëgëm waaye tamit lan moo leen di xaar ni ay défi waa défi mooy déjà donc xam nga ministre donc arrêté na depuis dans depuis un an. Mhm. donc premier défi bi mooy effectivement que liggéeykat yi toogoon liggéeyatuñu depuis un an. ñu dajale leen motiver leen vraiment encadre leen pour que ñu commencé liggéey ak motivation ak vraiment positif loolu défi la. Hmm. défi la ndax toog un an léegi yow vraiment baaxul. Hmm. ñaareel ba mooy comme que dañu laaj ne dañu bëgg ci par marché national bi effectivement dañu war a satisfaire gouvernement bi. Hmm. suñu gouvernement bi signalé ba pare dañu war a satisfaire demande boobu bu baax. ñetteel bi mooy tam ñu defal suñuy produit vraiment te comme que moo nekk Sénégal moo fi njëkk. kon li ma gis mooy leader numéro un ci Sénégal te dañu war a garder leader bopp leadership bopp numéro un Sénégal moom ma gis moo ko doon daf ko war continuer te xam nga nag comme yeneen ngi ngi ñu ngi juddu Sénégal. Mm-hmm. kon défi la pour que sa position de leader bopp incha allah. Euh, ci wàllu innovation lan ngeen mën a indi bile yoon euh, ci xeetu garab yu bees ak yeneen. waaw Médis euh, Sénégal nag bi jënd Sikoa bi lay wax nag. Mm. bokk na ci ay mébétam indi ay yeneen garab yu bees ndax mbir benn firme tunisienne la. donc vraiment am na une panoplie am na garab yu façon garab yu bari la am na wax dëgg yàlla. Hmm. donc euh, bi nga xam ne jën euh, SIPOA en 2017 commencé nañ di de ay garab yu bees garab bari nañ yu bare bare bari garab yu bees yu bari mais avant ñu commencé production bi ci lañ arrêté ci la ndogal gi ñëw. Hmm. donc xam naa suñ démarré waatee garab yu bees yi nga xam ne validé woon nañ ko nañ def production incha allah waaye tam indi valeur waat yeneen produit yu bees ndax Médis am na yeneen produit yu bare bare bare yoo xam ne mënuñu ko validé Sénégal donc bu ko pour gën a yaatal euh, portefeuille produit nga xam ne Médis am na ko incha allah. bu ngeen ñëwatee est-ce que tiitu leen tamit ci concurrence bi ndax ci diggante bi ngeen tëj am na produit yu bees yi ñëw sénégal yi adapté wu euh, ci produit yi ndaxam yéen bu ngeen ñëwee di ngeen mën a imposer wu. waaw waaw dañu mën a imposer wu Sénégal moom produit Médis moom c'est des produits yoo xam ne clients xam nañ ko patients yi malades yi xam nañ ko te bëgg nañ ko ndax produit bi dafa am ñaari paramètres yoo xam ne yenn produit am ñu ko mooy produit dañu baax pour de qualité la temps ñuy fabriqué produit patient yi suñu laaj jox ma produit Médis la doon laaj ndax dafa am